mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen euh, gërëm bu baax di leen euh, sant di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax ñëwaat ci trente minutes crono ni tàmm di ko defee di ziar ñëpp ci at mu bees mi euh, di assura bi ak tashura bi di nuyu ñëpp nag di leen gërëm di ñaanal rek su fekkee déwén ak tal ko ak mën ko waaye tamit suñu borom yokk ñu wér jàmm ak sutura su bari mu defal ko Sénégal ak réew yi ko wër ak bi yëpp. ñu ngi baalu ak ñëpp di nuyu ñëpp 30 minutes chrono ñu dellu siwaat euh, tey jii fa yéenee wax ci actualité actualité bi nag euh, nin ko waxee rek euh, mooy benn sànni la rek mooy Bassirou Diomaye fay ginnaaw bi mu génnee ci samedi ji janoo ak askan wi wax ak ñoom ci naal yi mu am waaye te li fi jot a def ci téeméeri fan naam sax jàpp na ni téeméeri fan mënuñu ko nat ci ko xam ne juróomi at lan ko yenn réew mi na ko na ko yor waaye nag ginnaaw téeméeri fan daje na wax ak askan wi bi mu waxee nag jur na ay réaction jugee ci ñenn ci ñaan opposition loolu tamit dinañ ci dikk comme Bougane ku ci mel ne kii di euh, Thierno bokkum ak euh, ñeneen ak ñeneen ba ci waa Benno Bokk Yaakaar dinañ wax aussi ci yenn point ñeel actualité bi ak tamit ñu fari ci mouvance présidentielle bi taxawaay tamit bi ñu am ngir gunge projet bi ngir mu egg fa mu jëm ak projet bi bu naree egg yàlla lan war a maytu yooyu pour tamit mën cee egg loolu lépp dinañ ci dikk ci Diomaye Sonko ñoomin seen ak fi réew mi jëm lu tax euh, ñu dellu si waat ci kàddu yi Bassirou Diomaye Faye ginnaaw téeméeri fan mu doon ab njiitu réew ma tuddee ko Diomaye en tout vérité li jiitu ci kàddu yi d'abord mooy dana am na ñoo ñu ne woon mën na ko am na ñu ne woon mënu ko ndaxte jomaay bi muy njëkk a génn ci ay kàddoom yi njëkk ginnaaw ban ko fale ay kokkali amoon na ci ci waxin week taxawaay week xoolin week yu bari seetlu nañ ko ci te ña ko doon wax yépp danoo xamul ni mbooloo moom kenn du ko mën waaye dañ koy miin moom micro bi ñoo yam dañ koy miin rek waaye boo ci doonee gan faw ngay gàkk yooyu yépp day faral di am mais jàngat gi ñu jàngat am ñu ne woon sunu njiitu réew mi de waxuma la réew mi waaye bu demee bitim réew na lay toogee ak président sàngam ak sàngam ak sàngam bi mu demee toog ak Emmanuel Macron ñu am lu ñu seetlu ñu gis ñaari nawle yi joxante loxo ñaari nawle yi daje ñu bari gis mat gi dem Mimi Touré mi ngi koy wax waxuma la rek ci Afrique ak envergure bi mu am. ci diggante digganteem ay AIS ba tax ñu wóolu ko dénk ko ngir mu doon puso bi ñaw waaye tam ci doxin wi ak euh, gëm boppam ci solin wi nduróog ñun bi ñu koy doog fal wax naa ko nee naa bi nee ma jomaay noo gisee man la jomaay muy ñun lu tax man la mooy ñun mooy fa ñu juddoo fa la juddoo fan yoroo fa la yoroo fan jàngee fa la jàngee fi ñu tekkee la tekkee jomaay leen rek la ñu ëppale ñun ci àddina mooy xëy doon président te ñun doonuñu ko mais fi ñu rek la jaar. maanaam du koo xam ne tubaab bee ko formaté tëgg ko defar ko jàngal ko jox ñu ko. parce que nag ñun dafa am benn baat bu suñu baay xalifa Khalifa si doon wax te ñu bari doon ko ree mooy ñun duñ fal tubaab bi moo ñu falal te boo dégloo wax ji doo comprendre lan la bëgg a wax waaye avec le temps man dama comprendre lu mu doon wax mooy boo xoolee sengoor ak fi mu jaar tubaab bi Abdou Diouf dafa mel ne tubaab bi ñoo ko joxoñ Senghor Senghor boo xoolee Abdoulaye Wade lan la une opposition de contribution ba 78 mu ñëw taxaw mais jamono yëpp da ngay xam ne tubaab bi la rek ba ci président Macky Sall en 2008 bi muy génn tubaab ya ko décoré woon may ko fit dooleel ko loolu da bi mu ñëwee ñoom la fi nekkal moom Macky Sall bi mu jugee ci réew mi tamit tubaab yi la dem di leen service mooy wane ni Macky Sall mosul doon suñu président mais ku ñu joxoñoon la naxe ñu ko loolu tax bi mu ñëwee li mu ñu doon wax lu bari defewu ko bi mu ñëwee la fi tubaab bi ëpp doole ab lay Wade sax bañ bañ lu na ak tubaab yi bañ bañ lu ci lu bari mais Macky bi mu ñëwee moom tubaab yi leen indilaat base militaire yi jël Multinos Orange nga xool Total nga xool Eiffage nga xool leneen ak leneen ba ci li jëm ci Auchan les grandes surfaces nga xam ne tubaab bi danoo dellusiwaat en force nin meloon ci Senghor mel ko ci Abdou Diouf Macky Sall ñëw delloosiwaat leen lu tax ma ni nag ñun ñu ngi doog am président bu ñu nuru doon ñun jomaay mooy yooyu yëpp jaaru ci amul fu tubaab bi jaar ak moom loolu da du am seen complexe parce que li mu doon defuñu ko li mu doon defuñu ko benn ci bu njëkk mooy mu doon président bu njëkk bu am ñaari soxna loolu rek rupture la pourtant ay détails la yi nit ñi di xeeb. bu ko neexee ànd ak kii bu ko neexee ànd ak kee te pourtant ñun dañ ñoo complexé woon complexé ba jàpp ni ñun ñi pour nga jiite sunu réew yi benn soxna rek ngay am benn première dame mi coquette coquette yi di n'importe quoi avec Macky sax am na rupture ci Marème fay ñëw ñëw à la mais Diomaye bi mu ñëwee da ko jogati te loolu lu ñu remarqué la te yooyu ñun la loolu dama leen Diomaye ñun la ñun boo koy xool ñun la ci solin wi doxin wi même boo xoolee digganteem ak presse bi ay nawle ñoo toog teg leen ci siège yu confortable parce que toogaay bi yàgg aussi tamit fokk nga am noo toogee mais am na siège yoo xam ne bu la ko joxoon toogaay bi du neex mais on a senti que la presse était à l'aise te loolu lu ñu jàngat la. beneen bi ñu gis un président de la république boo xam ne pour la première fois. ñu gis ku wax deux heures de temps ci kanamu sénégalais yi waxul politique ay sujet politique est-ce que jomaay nan ma balan parce que comme wax dafa bari woon tu am na fu mu tudd Pastef ci baatam bu dee am na bariwul il parle au sénégalais te loolu dafa am solo te ñun liñ mu a sentir mooy ñu am ay njiit yoo xam ne danoo partisan ay njiit yoo xam ne danoo partisan bu ñëwee toog rek comme Macky Sall toogaayam bu mujj jël njabootam yëpp teg doomam jabaram ñëpp teg ko mu mel ne nekk ñu ci république benn buur moo toogoon bu waxee ba heure bu ko neex mer na ci njekk kenn du ma forcer ci dara maanaam benn nit boo xam ne dafa mel ne li ñu ko dénkoon dafa dem jàpp ni moo ko moom mais jomaa jomaay lépp da dañu koy delloo mooy le peuple sénégalais yi askan wi te loo ay rupture la yoo xam ne ràññee nañ ko parce que nag da laa fal mais gënooñu da laa fal mais mënooñu da laa fal mais dàqooñu mais il faut que ñu am ku ñu jiite il faut que mu am ku ñu wóolu dénk ko mais ñu sentir benn humilité humilité nit ku humble parce que li mu wax ci digganteem ak sonk il faut que nit am humilité pour ñu mën a ànd mooy nangul ni nit ki. li ma jëm ci moom tële ko moom da ko jëm ci man mën ko te li yi di yëndu ci man di ba ko piis moom dama ne ko xool ko nee ko jàkk la sëñ Fallou waxoon Senghor nee ko jàkk te bu ko piis ma mën a Sonko bul piis sama sees bi mais ne ma jàkk yooyu ay leçon d'humilité la defuma pexe pour toog fi mais suñ borom moom ma fi teg bu jeexee jeex na avant loolu gis nañ fi ay xalif général yu may loxo wala ay imam yu may loxo maanaam droit denes gi dañoon ci ñun maanaam ormal mag jox gëdd mag par dem nañ ba roy tubaab bi ci ni ñàkk fonk mag moom mu ñëw delloo si ñu ni mag buur la mag c'est une bibliothèque ku mel noonu nag def téeméeri fan ci bopp réew mi bu ko neexoon mu bañ a woo la wax ak ñoom mais fàttewul la ko fal parce que nee na buggul dem bitim réew di njëkk a wax ak presse internationale bi kon fàttewul lu ko fal ci jamono ji naan nguur gi joxuñu yitte presse joxuñu fulla ak fayda presse te nguur googu tey jii li mu jox presse loolu la presse gën a soxla du xaalis du yëre bu rafet du daal bu rafet mais information xibaar un journaliste day nekk à la quête de l' information jumaay ñëw jox leen ko primeur surtout primauté maanaam mburu mu tàng mi ne ko <laughs> sama waaj doon wax mu mi mu ñëw jox leen ko te pourtant jomaay toll na noo xam ne benn mit bu mu doon parce que bariwul wax kumpa ci nit ñi ñu bari bëgg nañ ko découvrir tey bu noon France 24 kaay dañuy bi ñu ñëw dañuy naaw bu noon RFI ñëw dañuy dañuy naaw parce que ñi ngi déggu média yi nekk bitim réew mais président africain yi bari fa la ñuy waxee bu nu woon interview Jeune Afrique mais waxatuñ ko mais loolu mu ñëw jox ko la presse sénégalaise il faut que yooyu ñu koy magnifier léegi nag mu ñëw nekk dans l'essentiel foofu nag laay diggee ci débat politique bi pourquoi mu ñëw nekk dans l'essentiel nekk sur les grandes lignes te dugul ci détails yi daf ñu wax loo xam ne ñu bari wundu woon nañ ko ñu bari xamoon nañ ko waaye moom mu wax ko ñu dégg ko mooy gën a dal xelu ñuy déglu mooy caacaay gi fi Macky Sall bàyyi ci arrêté bi waroon na fexe ba ndox mi yokk ndox loo yi vital loo indispensable ndox mënul ñàkk moo tax ndox dañuy fexe ba ñëpp jot ci boo déggee annuel ñu naan accès universel à loo adduna bi yëpp mën a am ndox parce que ndox mooy lu nit mën na ñàkk Macky yor Sénégal bay jeexal am yéene yokk ndox loolu Diomaye moo jox information bi am yéene courant di couper Sénégal loolu mag Sall moo ko def te gëm naa ni Diomaye du waxantu te waxul lépp waxul lépp parce que nee na am na posture yoo xam ne boo ci nekkee am na loo xam ne munoo kaa wax am loo xam ne mënoo kaa wax loolu bu amee ci réew. njiitu réew mi ñëw nekk bees fexe ba lo loolu Macky Sall yéene woon ko ko ginnaaw décret yeeg piège yi mu ko fi tegal ak ay mbiri général Kandé yooyu yëpp ay piège la yu mu ko tegal jomaay ci tey gi ak dal gi mu mën a jéggi loolu xaar ba tey mu wax ko te nee na waxul lépp parce que il ne peut pas tout dire parce que posture am mayu ko loolu waaye nee na mi ngi def ay enquête am ngir xam kan mooy kan kon ñu bari ñu naan reddition des comptes dafa war a gaaw way dafa war a gaaw mais nag tubaab nee na plus vite que la musique on danse mal wala très mal te nit ki boo koy gunge te yàkkamtiwul yow mi koy gunge war nga topp ci ginnaawam nànk peut-être c'est la personnalité de Diomaye Diomaye dafa ne ñu ngi may wax nan topp diw nan topp diw nan topp diw Jomaay ñi lay wax nan topp diw waxuñu nan topp diw parce que da leen war a topp Jomaay dafa ne mënuñoo topp ku deful dara Jomaay wax jooju da ko wax natt ko ci jëmmam parce que bi muy dugg kaso peut-être deful woon lu tax ñu mën ko téye 11 mois da ko natt ci jëmmam moo tax du jël nit di ko dugal ci kaso parce que li koy dal maanaam boppam da ko servir exemple ba mënul jël nit di ko tëj ëllëg ñu naan deful dara mais Diomaye boo nee mënumaa tëj ñu deful dara ñi def dara nag réew mi daa am ñu fi def dara ni ko Mimi ture waxee mille milliards Covid yi du ay wax luñ teg bët la te ñañ ko jiñ weddi ko lu jar a wax la lu jar a lijjanti la beneen bi ci topp mooy rapport corps de contrôle yi tey journaux yi bëri génn nañ ci maanaam buñ ci dee wax te jëf amu ci dañuy dem ba jàpp ni ñan doon jiñ defuñu dara te plus que muy yàgg boroom xam-xam yee ko wax ne dañuy jàpp ni rapport yooyu sas aux sorcières la te man nag li ñuy wax rapport chasse aux sorcières man dama ko gëm sorcier dañ koy sase ñu ne nan def reddition des comptes mais bu nu def règlement de compte fi règlement de compte amu fi te bu jaree sax ñu régler lee comptes ña ngi ko régler parce que nag ki ñu dénkoon démb ñu dénk ko ba mu fegal lan ko dénk ko war nañ ko wal laaj ko dërëm bi fa la jaar tànk bi fii tànk bi fii tànk bi fii tànk bi fee mais waruñu taxaw rek ci ni ku deful dara baatu ku deful dara mais ñii danoo def dara gars yi Macky Sall yi ne danoo def dara te xam na ni def nañ dara léegi nag le danger mooy boo leen mayee temps lu tax nit kii buñ ko interpellé jàpp ko ñu def ko garde à vue denc ko en tendant ñu koy atte mais nit mën na def dara nga bàyyi ko muy circuler mais day dem ba benn jamono lépp lu mu defoon. mu fatt tur yi yi mu amoon yëpp mu fatt ko lijjanti boppam ba bis bu yoon di egsi ci moom du fa fekk dara pourtant waa ji def na xam ne Karim Wade kenn mënul wax ni deful mais yoon woon ko jaarale moo baaxul pourtant tribunaux simple yi rek ordinaire yi mënoon na ko àtte jàpp ko mais dañ ko dugal ci juridiction boo xam ne baaxul mooy CREI loolu tax man cette communication laa war nañ ko xool parce que durant des années nag danoo accuser ñi fi jaar ne danoo def lii danoo def lee ñu ne ku deful dara Farba Ngom këram dañ fa fekk un milliard un simple député comment il peut se retrouver avec un milliard dans une sembre ñu ne dañ ko sàcc néeg bi ñu sàccee un milliard néeg bu ñu sàccee un milliard ñaata milliards ñoo fa nekkoon waa di sëq rek di jël. Hmm? fonds politique yi ñu ne Diomaye dafa ñëw mën a fekku ci dara nga dégg gars yu naan non fonds politique du lépp lañ ci defandoo ci at mi mais ñetti weer yu ne mais ñun ñëpp xam nañ ni bu nekkee ci échéance électorale pour dem élection sunu nguur yi dañuy soxla liquidité xaalis pour mën a falwaat pour mën a téye seen pouvoir pour mën ci ger ñenn ñi jënd ci ñenn ñi mais aussi ut matériel. électorale boo xam da leen di dimbali pour ñu mën a réussir parce que ñun fii tàmm nañ ñi nekk au pouvoir bu ñuy dem élection nan lañ cay demee bu nu amul bilan bu leen fi téye alal la ñuy xeexee pour du fi toog alal jooju nag fa lañ koy jëlee du seeni salaire kon ñi ñuy expliqué naan mag yi loolu amul jomaay mi ko wax gëm naa ne waxantuwu ko jomaay waxantuwu ko yooyu yëpp bu xewee nag. la gestion des inondations 750 milliards naam am na lu ñu ci exécuté mais am na lu des loolu waruñu ko leeral hydraulique rural Aliou Sall rakk Macky Sall moo ñëw tuunaal ci Mansour Faye ci gestion hydraulique rural Mansour fay waxuñu ci loolu mais affaire yu Suez ak Sen'Eau yëpp tudd nañ ko ci fii amul benn ministère bu Macky Sall boo xam ne tey ji mosuñu la tudd ci dara mosuñu la tudd ci dara kon loolu lu jar a leeral la kenn waxul nañ jàpp tëj nañ jàpp tëj mais nañ ko leeral ñu xam loolu mooy lan mais bu leen bàyyi nii mbir yi yéex parce que ba état de grâce bi jeex parce que état de grâce bi xam mooy lan mooy dañuy dem ba nguur goo gis ci àdduna lool seen naturel loolu ci nit la nekk nit ki lu mu mën yàpp ko lu mu miin yàpp ko te Sénégal ñun danoo jikkoo noo xam ne li olof naan gis bëgg yàlla koy def ci jaamam waaye miin bañ ci jikko lay doon ñun mën na la bëgg waaye bu la miinee commence di la jéppi te boo nekkee dans l'exercice du pouvoir bokkul nga nekk ci conquête du pouvoir Sénégal mën na la utle mais pour ñu gunge la nga eggal yi yombul da ngay xool képp ku fi yor pouvoir dina la xeex ba nga jot ci mais pour ñu gunge la nga téye sa pouvoir dafa jafe parce que dëkk yi ne conjoncture bi jafe-jafe yi te ñun intérêt général li muy yëkkati bariwul li ci Sonko am sax ak Jomaay sax ñeneen ñi amuñu ko ci woon. peut-être Abdoulaye Wade am na ko de 2000 à 2007 bàyyi leen góor gi mu liggéey mais bi Abdoulaye Wade mënee réussir loolu dafa fekk ñu amoon une opposition républicaine. une opposition républicaine mooy nga am un tonor Tanor xam na état xam na état un homme d'état nga am benn Moustapha Niasse un homme detaa am leneen ak leneen xam nan bu ci yam ay Abdoulaye Bathily ay Dansokho ñoo xam ne xam nan ko am nañ expérience mais bokkul ak opposition bi parce que opposition bi c'est pas une opposition intelligente parce que politique da nga koy def dans l'intelligence lu tax ma wax loolu mooy ba nguur gi sosoo ak tey jii ku waxal te yàlla tax man politique gu ma mais en trois mois li ñu fi def ak li ñu fi fekk maanaam pour nga mën a naw li Diomaye ak ko def en trois mois il faut nga xam li fi Macky Sall bàyyi Macky sàll le bilan matériel nga bañ nga bëgg mën na ne TER berte am na njariñ leneen ak leneen am na njariñ mais le bilan immatériel Macky Sall dafa toog Fatick xawma ma Kaolack na gëwma loolu alors que le bilan immatériel moo fii téye nguur parce que infrastructure yi loo fi mënti def Abdoulaye Wade defoon na ko mais le bilan immatériel moo ko moo ko fi jële mais Macky sàll jànguloon ci loolu alors que sénégalais yi foofu la ñuy xaaree le bilan immatériel mooy li Sonko ak Diomaye taxawee réew mi doone tabax nañ fi lii déedéet mukk lépp lu nguur gi leboon ci ay bor ñu ngi koy fay te xam na ni bor yi toll la waykat doo doon waxoon naan suñu bor yi allinoo laa dette El Hadj Ndiaye suñu bor yi moo ñu xoj mais on a vu que bor yooyu ñoom ñu ngi ciy taxaw ñu ngi fay salaire yi wàññi nañu dund gi mbay mi liñ ci mën ñu ngi koy jéem gis nañ pèlerinage à la Mecque lu jafe woon la tabaski nekkoon une expérience pour ñoom ñu réussir ko les denrées ñu ngi koy maîtriser mais suivi bi des na parce que ba tey jii suukar am na ñu koy jaayee kilo 700 dëgg la rawatina ay Kër Masar ak ay jëma la banlieue il faut que direction commerce intérieur ñu yor loolu ñu jug parce que Sénégal mën nañ tàmbali mais duñ yeggali suukar genn waa libre amatul cent ay mbuus cent franc la ñuy jaar bu ñu ko boolee du mat sax genn waa am na ci beneen système boo xam ne dañ ko jël. mooy mun na la jaay suukar ci cent cinquante mais bu dee warga maanaam pël Fuuta yi ñooy def loolu ça je les cite warga bi doon jar cent franc da la koy jaay cent vingt cinq léegi pour rattraper ko ci suukar si wala enquête yëpp maa ko def maa ko def beneen bi ci topp wala ñuy bi jar cent vingt cinq ñu jaay la ko cent cinquante léegi. même mun na la jaay suukar mais ci warga bi leen koy liwee parce que prix warga bi contrôlé wuñ ko te boole wuñ ko ci ñu wàññi kon dan lépp lu ñu wàññi ci denrée yi ñu wax da nga koy da koy yokk feneen mu ne yow la nga doon jëndee parce que warga kenn mënu ko naan moom donc da koy naan ak suukar exemple la bu ma joxe nii mais loolu tax ñu les volontaires yu ñu dénk li jëm ci saytu wàññi gi nañ ko xoolaat ndax wàññi gi am na ci dëkk yoo xam peut dans les régions am na ñu koy am mais réalité régions yi du bokkul parce li ngay jëndee Dakar mënoo ko jëndee ci régions yi parce que xoolaale transport bi mais ici à Dakar surtout la banlieue suukar la mu doon jar lay jar 700 ci ñu bari la majorité te nag mu am benn lobby boo xam ne li Taïda Sarr wax dëgg na mooy lobby bu di Guinée ñoom ñëpp dañuy déggoo ci dara te les groupes WhatsApp yi mooy tax bu contrôleur yi ñëwee jàppaleen day jafe. léegi dañuy def de telle sorte que boo ci jàppee kenn ngay jàpp mu informer ñeneen ñi ñu tëj wala ñu xool li ñuy def loolu benn réseau la boo xam ne il fallait que ñu dénoncer leen noonu ñu koy defee tam am na ay boutiquiers sénégalais yu koy def kon loolu il faut que ñu bàyyi xel ci côté denrée yi naam wàññeeku am na mais effectivité bi sur le terrain day des nga xool ci jàmm. gi ñu may réew mi jàmm ji loolu ci bilan immatériel bi la bokk jàmm parce que loo tal ci àddina jàmm na am jàmm parce que tey jii Bougane mun na def conférence de presse am wax lu ko neex dem ñibbi këram ah, kenn du tëj permanence am kenn du tëj daraam RTS ñëw filmer Bougane ñëw teg ko ah mu wax Sonko lu ko neex loolu nañ ko boole ci bilan bi beneen bi ci topp mooy ñu am une gouvernance de proximité suñu ministre ñi ngi leen di gis ñi ngi ñëw sur la terrain di fekkee di jonjonteeg askan wi exemple bi ci gën a rëy mooy le premier ministre bu dem Colobane nan ko yuuxoo nan ko saaga nan def lépp Ousmane ko mais amu na courage yu dem sur le terrain affronter problème yi yooyu yombul woon ci sunu réew yooyu yëpp da koy dugal ci bilan tey ji bu ñu doon lim du jeex bu ñu doon lim tey du jeex ñu dem ba ci patriotisme fiscal réew mi dalaa tabaxal tali tabaxal ay hôpital te yooyu yëpp bu amul nga kaas ko réew mi ne la fayal impôt nga bañ ñu ne noo képp ku ameeti impôt da ngay fay parce que dun parce que Sénégal li ñu doon wax naan les plus grands mangent les plus petits moo fi amoon maanaam baadoolo yi ñooy dimbal dundal borom koppar yi tey jii boo demoon tey ci dëkk kaw yi dañuy fay impôt te amuñu dara fa la ndox gën a serré fa la courant gën a jafe pourtant ñi ngi wàccoog loolu yow nga dëkk en ville yor fi lu ne. ñu tabaxal la tali tabaxal la ay autopont TER BRT lépp nga am ko ngeen doo fay impôt loolu tax taxawaayu impôt yi li ci jomaay waxee laa ànd amul kaf amul ree dañuy fay far force parce que fii képp ku kun fi jox facture courant wala ndox da nga koy fay da koy fay far force ak nu mën a toll booy def moratoire rek leneen yooyu yu ñuy saluer la ci yoo xam ne xew na fi ak yeneen. bu ñu ko doon wax sur le plan social la fait que ñu maîtriser les prix rek même buñ ko wàññi ñu maîtriser ko rek mbir la mais na am suivi na am topp léegi nag loolu ñu fi def ñoom ci ñetti weer te ñuy xajoo gi nga lii ñu fi def ni Bougane xam na ni def nañ ko fi Bougane xam na ni gars yi ñu ngi liggéey na Bocoum xam na ni gars yi ñu ngi liggéey bi ñu ñëw xam lu la ay détails benn booy bu jël gaal gi dem kooku mais bu réew yi gën a neex ci àddina sax nit a nga fay jógee di tukki dem feneen immigration irrégulière wala illégale fépp la am ci àddina da dégg buggaan mun la les marchands ambulants marchands ambulants yi buggaan yi fait de la récupération loolu fokk ñu nangul ko ko politiquement moom dafa jàpp ni marchands ambulants yi danoo mel mer mu ne naw xaaral ma récupérer leen maanaam moom les frustrés lay récupérer mais ñooñu est-ce qu'ils sont récupérables fi jamono toll il faut que ñu xool est-ce parce que ñooñu ñoo la gën a xam enjeu bi seen déguerpissement yi ak désencombrement yi mais politique la loolu pour nga buux ko état day jafe parce que les collectivités ñoo géro loolu. loolu tax loolu boo ko bëggee dugal ci bilan wu état da ngay juum xale bi mbëkk gaal loote yi bi muy dem lu ko yóbbu mais dinañ def la telle sorte que pour maîtriser les jeunes ñu toog fi mooy jaar ci agriculture fexe ba ñu gëm réew mi mais loolu du solution conjoncturelle les c'est structurel loolu mënuñu fal trois mois rek na noonu bu benn ndaw génn ci réew mi bu benn ndaw nekk di ambulant te loolu pour ñu liggéey ko il faut ñu defar bopp yi xel yi loolu ci bopp la ne nga gis un Thierno Bocoum day ñëw ci problème personnel xam ne Bougane bi wax mbiri impôt waxul pour réew mi ci boppam lay wax parce que dafa yor entreprise war a fay impôt ci nii ci nii mu wax ci ay waxam mais après da ngay xam ne kii ci boppam la ne mun na am bu dul woon impôts yi bu ñu xëyeen bàyyil ko impôts yi est-ce que dina am cette réaction est-ce que lii lii lii lii comme moom ci survie la ne ci benn Thierno bokkum la même chose ci survie la ne mais ñooñu xamoo lu tax damay gis waa Pastef yi di leen déngaat di leen xas lu ñu ñu tuddee leen ko mais est-ce que xamoon ñooñu danoo arrangé projet bi Thierno Bocoum ak kii danoo arrangé projet bi parce que la nature a horreur du vide. opposition il faut que mu am te man bugguma dëkk bu amul opposition parce que risque la baaxul tey jii taxawaay bi buggaan am Thierno mu am ko benn Fadel bu gën a génn ñoom ñett ñëpp boo boolee li ñu am ci politique zéro pour cent la déggoo ma de ñoom ñett ñëpp boo boolee li ñu am ci politique zéro pour la kon ñooñu mënuñu yëngal nguur gi. mais la fait nguur gi wax ñoom ñu tontu nguur gi lu baax la parce que dañuy occuper benn terrain bu vide xam ne dafa am benn jamono ko dem grand théâtre yëngal parce que boobu y avait pas l'opposition presse bi nga doon gis alors ko presse bi du ñu interlocuteur nguur nguur gi loolu la fekk nag mu yëngal jomaay génn Thierno bokkum génn loolu lu baax la te taxawaay bi jomaay génn ak Thierno Bocoum mun na am Thierno bokkum ak Bougane bu nu loon ci position boobu mun na am keneen génn. wala sax opposition bi génn ci biir Pastef parce que ci vitalité démocratique loolu normal la àddina nit il faut que mu am ko jaakaar la moom nguur surtout nguur tey jii il faut mu am ku jàkkaarloog moom looloo tax nag kii di Thierno Bocoum ak Bougane danoo nekk lu gën ci nguur gi parce que damay jeexal rek ci Amadou Toumani Touré Mali amoon na benn jamono dafa dem boo Mali amatul opposition waaw léegi ci la Amadou Yaya Sanogo génn def coup d'état depuis lors Mali mënatul jag loolu tax ñu fexe ba am une opposition mais la vraie opposition ñëwagul ñi doonoo nekk à l'école de l'opposition c'est des apprentis politiciens mënaguñ lu bari boo xoolee li ñuy wax duñ ko teg ci ay arguments te dañuy nekk dans la réaction te avantage bi Sonko ak Diomaye am ci ñoom bi ñuy doog a waa Pastef doon nañ def erreur boobu mooy Pastef moo nekkoon dans la réaction maanaam da leen dóor ñuy fayu te nguur loola war di maytu léegi Sonko fexe ne ba renverser tendance bi léegi sonk mooy dóor Jomaay di dóor léegi ñuy fayu léegi déggatoo ñuy wax sonk ak Jomaay parce que Jomaay réglé na problème boobu léegi ñi ngi ci leneen kon Ablaye mu ngi noonoon rek mu doonoon jàngat bi doon def ci taxawaayu ñenn ñi mais aussi jàngat bi ñu doon def ci Jomaay Faye ak téeméeri fan yi ak euh, li ci war ak euh, taxawaay beeg ñoomin seen kon ñi ngi gërëm ñëpp di leen sant di jégalu ñëpp di balu ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye Diallo ak Fallou ñoo doon jàpp ci régie bi Omar bun Xataab gi ci kàddu gi beneen alxamis incha allah ñu dellu siwaat